dafa nekk loo xam ne peut-être sax hier lañu waroon mën a ñëw mais comme ni mu demee rek parce que booy ñëw aussi surtout situation bu métti boo xam ne am na enquête boo xam ne mu ngi ci biir c'est important aussi balaa ngay dem ci jabot bi nga xaar ba am élément yoo xam ne da ngeen li jóge Amérique peut-être egg ci ñun mais néanmoins wote bi moom wote nañ fi wote nañ également à Mbour jot naa sax papam boo xam ne mu nga parce que bu mu amee ci ndigalu njiitu réew mi aussi suñu ministre muy ministre Amadou Ba dafa instruire suñu consul général bu nekk New York mu ne ko ah lu mel ni kenn du ko régler à distance da ngay jóge New York dem ba foofu nga toog ak euh, njaboot bi mooy papam en même temps aussi nga mën a rencontrer autorités locales yi moom mu defee ko noonu ba aussi même le maire de la ville jóge na fa dem ba ci kër ga pour indi njaalam ba mu demee aussi gis na papam Massaoulen leen bu baax président rencontre également inspecteur qui xam confié l'enquête mu est le métier, mais il est le aussi état Sénégal ci tout le monde. dina à côté de la famille de FLEP également pour enquête pour aboutir pour les pistes criminelles également parce que ci réewu droit à nous, nous ñu mën aussi pour nous mën les téye ah, punir leen loo xam effectivement dina à la hauteur de la abominable bi ñu def lolu yakarna ni nous ñun ñëpp ñong ci

bu nekk ci bi parce que même les fédéraux parce que a police bu nek ci bi mais aussi amna les fédéraux même les fédéraux effectivement dem également aussi pour saytu lépp en rapport également avec euh, papam parce qu'il li def yëpp da ngay bolé hein ah, papam bu fa nek ñong ci liggéey bu baaxa baax et je sais que xamna naa ne fii ak heure yi ñew dinañ ci gëna am ay précision mais li ma bëggoon wax daal mooy indi leen président njaalu njiitu réew indi également le ministre Amadouba, Ba ministre des affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur indi le gouvernement mais je veux wax sax indi le peuple sénégalais parce que si vous avez ba témoignages boo témoignage réseaux sociaux pour xoolee également réaction yi am savoir fa nekkoon xam ko nga xam du perte Sénégal perte parce que profil de rek moi c'était un jeune cadre sénégalais donc un ingénieur am un profil vraiment un très bon profil donc nous suis jeune également lolo ne suis a perte nga xol aussi njabot bi mur hier rek amna sama rak bo xam dem na ba kër ga jàlle len parce que lolu moy Sénégal ndogal kenn mënul ci dara li ñu mën rek moy ñu massa wolen bu baax baax sama papa bu ñu exé tàmbali ak ñaan ñun ñëpp ñu ñaanal len yalla xale aljana lu melni ni gi ci kër gi mais gi également ci réew mi mais le message daal bo xamné mom moom lañ ma wax ma délivrer ko ci bir njabot bi mu nek un message bo xamné président de la république mom ak ministre Amadou Ba jusqu'à presque 1 heure du matin ñoo ngi joko parce que bobu consul ba dem na va rendre compte c'est-à-dire fu mu tollu moy ci lu mu lacc ci taxaway Inch'Allah au rabbi une une instruction pour l'État Sénégal à travers notre ambassade Washington et consulat général de New York pour que justice soit faite mais également pour que toute la lumière soit faite sur cet incendie la prise criminelle se précise mais comme enquête la rek commandant xamna na li may wax balaa nga ci da ngay xaar def conclusion enquête Il dañ ngay xaar am conclusion enquête mais lolu mom c'est un message qui est clair ñepp dinañ ci taxaw à commencer par la plus haute autorité pour que la lumière soit faite Cori aussi inshallah au rabbi bu lepp jexé rek luñ ci wara def bu soobee yàlla te dégg nañ message boo xam ne moom la famille ba bëgg papa bi bëgg ko ñun ñu bëgg ko loolu aussi ça sera à la charge de l'État donc euh, suñu papa en tout cas loolu moo nekkoon euh, message bi du gudd di masawu bu baax a baax euh, yaayam parce que métti na hier bu ma wootee mënu ma woon wax ak moom sax moom.